ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp góor yu baax yépp góor ak jigéen mag ak ndaw di leen ndokkeel te di leen mbalu àq di nuyu itam sunu gan yi fi ñëw jógee Algérie ak ñi ci jógee Égypte wa tabarakallahu fekk fi sunu délégation yu jóge Mauritanie ak itam sunu délégation yu jóge waaye ci biir loolu itam gan mi mooy délégation bi ñëw ci turu coalition bi mu di Khalifa Sall ànd ak Sonko ànd ak soxna Aïda Mbodj ah sunu mbokkum bopp Cheikh Tidiane Youm accompagner leen ak toute la délégation ñu di leen nuyu di leen dalal am naa tabaarakallahu sëriñ moo bañoon juum ndax comme délégation la bëggul toogal ñii fii te du fi toogal ñi ci des ni dama ko ñaanoon ne ko bu ngeen ñëwee nañ leen teg ci kaw fi may toog ndax maag yéen ñoo bokk coalition waaw loolu du dañ tey te du dañ ëllëg <laughs> waaye ci la bokk waaw tabarakallahu kon ñoom coalition bi ñu àndoon ak ñoom démb te ànd ak ñoom tey te fas yéene it ànd ak ñoom ëllëg ba keroog yàlla di def ñu décroché li ñu war a décroché allah mu mel ni ñii fi ñëw jógee Algérie ay shérif lañu jóge ci kër Seydina Cheikh Ahmed Tidiane wa